alhamdulilah ñoo leen seen revue de presse lamb talaatay tey jii la ci gën a fës ci mardi bi suñu lamb ma ngay ñëw ci waa Pikine ak seeni VIP Eumeu Sène Ama Baldé Boy Niang waaye kii di Ama Baldé suñu lamb moom la ci jiital di ñu xamale ne mooy njëkk ubbi baal bi balaa yeneen champion yi di yegsi Ama Baldé mooy ñëw jëflanteeg Modou Lo la 5 novembre Eumeu doog a ñëw Boy Niang doog a ñëw suñu lamb mu ñu xamal ne kii di Reug Reug ginaaw combat bi mu perte digganteem ak Sa Thiès digganteem ak Bombardier bi mu jëm le 24 décembre amul droit def erreur ki nga xam si ni moo di Gris Bordeaux dem na France préparé wu ji digganteem ak ki nga xam se ni moo di Ama Baldé kon Gris Bordeaux loolee moo lay wan ni bëgg na komba bi te combat bi am na enjeu ndax Ama Baldé ma nga war a bëre ak Modou Lo am na nu mu fay génnee titre roi des arènes bi boobaa Gris Bordeaux da koy mën a ak Ama Baldé moo tax combat boobee mu jël ko au sérieux waa Guédiawaye le 12 novembre am nañ ci ay bés moo tax ñu jël ko au sérieux ndax marle bu keroogee da ci laaleeg mbay guy gi màcce da ciy laaleeg Jacob Baldé kii di buuse laale ci ak ki nga xam se ni moo di wulli ndigal tamit da cay ñëw bu keroogee da ci dajee ak ki nga xam si ni moo di wës jàmbaar kii neen koo xam ne doomi géej waaye la wane na boppam suñu lam mu ñu xamal ne ginnaaw jële bu réy bi mu daan buur siin waaye ndaw indi fa mbooloo mu bari wane na boppam ci wàllu mobilisation ki mu daan nga xam si ni moo di buur siin ginnaaw daa waxoon ne bu ko kii di ñaabu ndaw daanee day arrêté carrière am suñu làmb nag ab laaj la fa samp mayee fa point d'interrogation ndax buur siin day arrêté carrière suñu làmb mu ngay ñëw ci Modou Lo Ama Baldé ñu jëm le 5 novembre du ñu xam ne combat fi mu toll nii yeneen combat ci biir combat yi la ndax combat des banderoles la ndax ku ca nekk sa koñ say supporters ña ngay takk say banderole di waajal boobule combat borom Jilas production mu ngay waajal niki dimanche 29 octobre foofee ci adresse Senghor mise bu toll ci 1 million la fa teg kii di Garga Mbossé ndaanaanu door dóoraat bi suñu laamu mu ñu xamale Garga bu parcelle fi mu toll nii ma nga États-Unis waaye daal fi mu toll nii loo ci mën a dégg ay carrière am fi mu toll nii ay fansam daanaka mën nañoo xool ci beneen trondoom buñ jàpp ku ci mel ne Garga 2 ndax moom ma nga ca États-Unis suñu laam mu ngay ñëwaat génn àdduna ki nga xam si ni moo di Falaye Balde instant bi bu fi nekkoon suñu laam mu ñu xamal ne ngi am quatre-vingt-un ans ba muy génn ci atum 2013 la woon suñu laam mu ngay deesiwaat ci ki nga xam si ni moo di Tapha Gueye ci ñaari defet la bàyyee làmb ci atum ki nga xam mu ñu xamal ne Balla Gaye 2 moo ko daan après Lac de Guiers 2 daan ko suñu laam ci combat Yékini ak Tyson bañ njëkkee bëree suñu lam mu ñu xamal ci atum 2006 la woon ki nga xam si ni moo di Petit Mbaye borom action 2000 moo tëggoon boobule combat ñu ñëw ci tournoi bi ak suñu lam mu di ñu xamal ne poule de la mort poule bi nga xam ne ay ndaanaan rek ñoo fa nekk ay luur mu di Doudou Sané mu di Ndiaga Dollé Boy Jaxaaw ak nga xam si ni moo di Garga 2 suñu mu ngay ñëwaat ci ki nga xam si ni moo di Lagrose di ñu xamal ne ginnaaw palmarès bu toll ci mu jëm digganteem ak Fils de Balla a am la 14 janvier combat boobee nekk na combat bu koy dugalaat ci làmb wala bu ko ca mën a génnee ndax combat boobee ndam rek moo ko ca war bu fekkee bëgg naa dabi ay moromam faaw mu jéem a gagné la 14 janvier ginnaaw loolee ñu sant leen gërëm leen jox leen dig daje ni ki suba incha allah